toujours ambiance lay doon ak les journalistes parce que xam nga rek ba ay frères ak ay sœurs ñoo fi nekkaan ah, te sport avant tout caf ak ree la moo tax gis nañ ko instant jim toujours euh, cœur de l'Égypte ah restez sur la 2 ay surprise yu garaaw ngeen di am ah. avec seen votre rubrique instant jim ñëpp a yëngatu ah let's go Samba foo loo yëg. neex ah. hmm. na stress bi dañ na. je dañ na. on va répéter ça durant tout le séjour. si tu chaque matin y pas de souci ah. t'es prête. prête. <laughs> maa étiré wu dafa metti hmm. <laughs> waaw neex na trop nag neex na trop. quand même am na solo am na solo. instant yi ngoon ku ñu yóbbu ci match Sénégal ñu joué. waaw c'était l'ambiance ici au Caire dans votre rubrique Instant on est toujours au Caire ah. toujours au cœur de la CAN ni ngeen koy dundee ba CAN bi jeex Instant Gym sera réalisé ici ah merci beaucoup Pape Samer téléspectateurs yi bëgg